jottali kàddu yu nuyoo sëriñ bi ak kàddu yu cant ak ngërëm yema ko ci yàgg boo kilifa yi nga àndal yëpp ak bokki taalibe yi ngeen àndal yëpp den jottali nuyoo sëriñ bi ni ko waxee léegi wax ji du gudd ndax eh, yoon wi moom jëf la te lu ñuy def rek Sëriñ koy defal te moom lañ koy seereel kon moom muy def Sëriñ Tuubaa la koy seereel yéen na xam na ne yéen a ngi ci waaru bu dégg ba lu mu leen digal ngeen def ko bu leen digal itam ngeen jéem a dàkk ndigalam loolu nag moom ulaayika yusaariuuna fil xayraati kon loolu rek mooy li ci am kon sëriñ bi neen mi ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey yi nga xam ne yéen a ngi koy taxawu yëpp ci dëkk bi te li ci def lépp dara génnu ci dëkk bi moom ngeen koy defal te saa su ngeen agsee ci moom yëg cofeel ak jàpp gu yi gi nga xam ne am na ko ci yéen ngeen xam jom ak yitte ji nga xam ne moo leen tax a jug kon nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax ci barke Serigne Touba mi nga xam ne moom ngeen jug ngir fas yéene koo liggéeyal yàlla mu gàttandu leen ci bu bax ba fa ngeen yéenee àgg bëgg fa jëm lépp mu defee leen ci tawfeex ngeen àgg fa te dara bañ leen a gàllankoor ndax xam na seen njàmbaar xam na seen yitte lii nag bëriwut da ko tàmbulee rek ndax xam nga ne. joxe na juróom fukki million yoo xam ne ñu ngi ko tegoon ci loxo suñu Youssou jóg mu yóbbul ko gouverneur bu njaareem boobu ba tey ñu leen di soññ sax ndax nit ñi fi ñu toll ci xat-xat waaye xam nga état mënta def dara te deful recensement recensement bi nag moo yàgg ndax lañ yaakaar yaakaare moom la doon cib lim ndeke wees na ko di wéy ndax ndeke dem na ci ñaari junni ak juróomi téeméer xam ñaari junni ak juróomi téeméer rek. boo xoolee ñu leen séddaloon cinquante millions ku ci ne ñeenti junne nga am kon loolu bëriwut lim bi mën naa nur lu bari looloo war rek sëriñ bi comme na nga ko waxoon ci njëlbéen nga da ko tàmbalee ndax boo jàpp ne ëpp na téeméeri kat daa tàmbale loola moo taxat moo taxit mu génnewaat lu mat téeméer million ak juróom fukk fas ko yéene dugalaat ci biir ci biir liggéey boobu nag mu jël ci fanweeri million ngir xam ne ñëwoon ngeen ci moom laaj ko ndigal te xam na ne ñaan nga képp ngeen di séentu ci moom ndax taalib yi am nañ positif joxe te ñu ngi joxe waaye nag lépp lu ñuy jëfal suñu tubaab yéexam di caa war a dugg kon noonu rek la lii moom kon lim jëm ci fexe ba manque ndox mi ci biir kër yi ndax sonn nañ ñu ngi doon ñu ngi xool sax ba xam tant nga xam ne ministre de l'Intérieur am na ko ngir ñi ñi nga xam ne mënatuñoo dëkk seen biir kër ñu ngi ko waxee ñu seet ci kër suñu tubaab fu ñu leen dugal. maa ngi ci doon waxtaan ak sëñ bi léegi bu bu ma noppee yéen rek dinaa dal jokk moom waaye sëñ bi ak soññ rek la ci jublu ni mu ko defee itam ñu la jënde ceeb bu bari ak diwlin ngir jox ko sëñ Yuusu Jóob mi bu ànd ak daayira Hizbut Tarqiyyah ñu seddale ko ci ñi jotoon recensé ba noppi ndax lool boo xoolee juróomi junni boo xoolee ñaari junni ak juróomi téeméer boo boo doon xool ku ci ne nga jox ko saako ceeb képp day met cent cinquante tonnes mat na ko te bokk ak diw bi ak ak dolli ko waat gouverneur yi ñu ngi xool mu jéem a seet nu mu dollee li nga xam ne moom la tàmbaloon di ko joxe kon loolu mooy lii ngir xam ne nag ndegam yéene nga woon ci waar daaw def ci liggéey yu am solo ba moom ci boppam mu gërëmal leen ci boppam ñëpp rafetlu ko ren jiitam ngeen tàmbalaat ci lii. kon faaw moom itam mu feeñ ci yéenam ndax ni ni mu ko waxee rek am na ci loo xam ne état la war ñoom itam lañ ca war def ñoo ngi koy def waaye bokkuñoo ak yéen fu nu ngeen di jëfe ak fu seen liggéey di yem kon loolu mooy lii rek ñu tàmbali ko te di ñépp képp ku leen ci mën a jàppale ci oto walla wala gasoil wala lu man rek wala suuf wala lu mën doon loo xam daal dana gën a yombal eh, nit ñi. ndax màggal li des bëreetul ay bis la laaj na liggéey bu farlu te gaaw ngir màggale ci biiru ndox moom dara gën koo métti suñ bi rek moom nee na lim ci jëf wutaloo ko liggéey bi muy def ndax uh, lépp taalibe suñ Tuubaa yoo ko fi indi kon nag bu ñu nekkee ci jaaxle lu mën ca taxawalee bañ génn ci rek dana ko def nee na wutaloo ko loolu noonu rek la ko jàppee kon yéen itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm uh, ngeen gën a góorgóorlu rek. te xam ne euh, li kullin illa sha'win wala xarakatu walakin azizun li rijaali subutu jug jëm ci lu baax yomb na lool waaye li jafe mooy fexe ba sax ca ndax mbooloo saa su yëkkati ko rek seytaan day jug taxaw seytaan nag mooy yuwaswisu fii suduuri naas min sharril waswaasil xannaas allasi yuwaswisu fii suduuri naas day dugg ci biir xalaat yi ak den jax sa ku ne lay gis gis la soobu te loolu bokk na ci li gàllankoor mbooloo li am solo na kon mooy li ñuy def ñu koy seeral yàlla tey xam ne kenn ku ci ne di seet Sëriñ Tuubaa ci sa digg sa morom bañ cee dugal bakkan bañ cee dugal bànneex bañ cee dugal dara ndax Sëriñ Abdou Lahad nee woon na yàqu bakkan yàqu seetaan moom Sëriñ dindi na ko fi loo fi gis mu yàqu rek yàqu bakkan la ak ak eh, waaye seetaan moom suñu Tuubaa sori na ko malaktu nafsiya ausa saxtullahin mooy loolu kon nag eh, ñi ngi sant bu baax rek tey dalem xëy bi liñ bokk ci suñ bay yëpp dañ ko dañ ko jël teg ko ne ngir xam ne ak taal bi mooy jaay ci suñ bi mooy sëriñ abi mu Seex Mahamadou Fadil yàlla na ko suñu borom dëgëral te sàmm ko te mot li yéenam ndax ko amul dogu la ku am engagement da ci li def Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi itam loolu li ñuy seere si Ibra la ñuy seere ci moom ku dëggale ku bëgg Sëriñ ku bëgg yoon wi la yaa ngi ci des topp seen ginnaaw yëpp itam muy eh, Sëriñ Cheikh na waajuram Sëriñ bi ja xam ngeen ni mu demee ci biir yoon wi maa ngi koy wax barki dem eh, moom bàyyi na lépp ni ci liggéey bi Sëriñ Cheikh Abdoul Sëriñ Daam Atta suñu doom moom itam ku jàmbaar la posté fa jiite rek ne ci moom ak suñ mor suñ doom moom itam Cheikh Abdou Fatah Cheikh Abdou Fadil moom itam jàmbaar la yitteewam posté fa mu taxawaayam ak yéen taalibe yi nga xam ne yéen topp seen ginnaaw te ci tuddee suñu Abdou Fatah Gaye mën a yóbbaale yi ñu ci des ñëpp ba ci Moustapha Dieng kenn dal waaye li am solo rek mooy eh, gën defu nas mel na kurus rek mel na kurus nekk jënd jëmm isastaka minhu udwun tadaa lahu shahirul jasadi bi sahri wal huma te xam ne fu ngeen àgg rek def yoon say mu leen fa àggale kon nag ñeneen yàlla dimbalee ci barke Sëriñ Tuubaa ngeen dox ba agsi fii mi ngeen fexe ba defaat jéego yu ko gën a ëpp ngir sàmm ko ndax euh, euh, ndam moom yàllaa koy joxe waaye nag nit a koy sàmm su bi laa daan wax ne barke coonaa koy téye kon li ngeen defoon ba daj ci ba mu agsi fii na ngeen di dajaat lu këpp ngi di ko sàmm